bi bu fi euh, état bi di orienté étudiant daf koy jox ben certificat d'engagement bo xam daf ko wara lire ba paré signer ko dañ ko jox sax délai bu ko nexé mu yóbbu ko këram wan partagé ko ak ay parents boobu daf caa bok ni yow étudiant bi amulo droit di def dara ben activité buy entraver fonctionnement wu activité pédagogique yi wala culturelle yi wala sociale yi am ci biir université bi amuloo sax droit ñu la ci convoqué ngay banque sa loxo document boobu jàpp naa ne bu noppee bu jàppandee rek mën nañ ko partagé ak ak journalistes yi ñu liiral ko seen bopp gis ko xam bu baax ni étudiants yi sax même lii ñuy def nii amuñu ci droit mais sëñ bi ak laa biram lu mel nii amoon na fi daaw ñu dem ci presse bi wax bu ñu ñëwee bu ñu leen bëggee sanctionné pédagogiquement parce que dañoo boycotté ay examen sëñ bi danañ dimbaleel leen leen ngeen defal leen ay rattrapage loolu nag bokk na ci li ñuy wax ñu naan yërmandeem googu moo tax yu mel nii di répété wu mais am na loo kenn ñëmu koo def dans certaines universités privées kon euh, le 13 septembre bi passé jékki-jékki rek nañ gis benn euh, plateforme revendicative buy wax ni li lañu soxla plateforme boobu sax man na ma wax ne benn déclaration wala déclaration de grève laa koy tuddee ñun loolu moo ñu ko informé kon ñun ak journalistes yi yéen yéen a ci bokk yam ñun ak public bi sénégalais yi ñëpp ñoo ci bokk yam c'est-à-dire grève bi amul préavis bi binduñu waxuñu yëglewuñu informé wuñu dañoo jékki-jékki rek gis benn këyit buy circulé ci statut yi ak réseaux sociaux yi wax ni dañuy def 72 heures de grève à partir du 13 mercredi jeudi et vendredi que bobo samedi war a eu ay examen vendredi ca guddi ñu gisaat luy circuler wax ni dañuy léegi sax léegi illimité grève grève illimité la te danañ que ba examen yooyu du am ñu xëy regroupé wu fii ci buntu établissement bi faculté bi gàllankoor ñi bëggoon a ñëw ci ñoom pour def seeni examen ba mu naroon une indi créer altercation ginnaaw bi ci la police ñëwee def liggéeyam administration bi tenir une rencontre ak ñoom police le commissaire était présent wax ak ñom laaj leen lan lañ bëgg ndax officiellement ba légui amaguñ lu joggé ci étudiants yi lu officiel lu dul kayit woowu ñu gis muy circuler à Dakar aussi waroon ñu def un exemple, surtout pour les étudiants de l'année préparatoire wante am na ci ñom ñu ko def am na ci ñom ñu ko l'établissement prendra ses responsabilités comme généralisé la grève dans tous les centres fi mu la faculté de Touba muy est le centre de Dakar nous fonctionner ñaar ñi ci en vacances muy bu Ndar bi bu Saint-Louis ak bu Bambey Nous itam ñoo ci gën peuplé à Dakar on a plus de 1200 étudiants inscrits Si ñëwee fii ci Touba on a à peu près 3000 étudiants inscrits année préparatoire bobu itam dafa jar wax parce que bokku na ci li wax fi à Touba ñun dañu war dindi année préparatoire yeen xam ngeen wax naa ko ci biir bu dul woon année préparatoire bi kenn du espérer former profilu arabophone yi arabisant yi ci filière yi ñu leen di former muy loo xam ni état bi ci boppam moo ko ci biir contrat bi donc la licence à l'UCAB dure 4 ans au lieu de 3 ans l'année préparatoire L1 L2 et L3 loolu moo lay may nga nek un certifié c'est-à-dire boo matalé année préparatoire ak ce relevé de note L1 ak ce relevé de note L2 ak ce relevé de note L3 ak ce relevé de note nga bolé ko ak ce relevé de notes bu baccalauréat ak décision jury ci sa sortie document bobu la yobbu direction des examens au concours nous ñu vérifier ko ba gis ni lepp tout est ok plus ce photocopie carte d'identité carte d'identité parce que comme tous les diplômes diplôme diplômes dafa valable ci espace CEDEAO bi diplôme bu une am immatriculation y koy may numéro Il faut que déposer ci àdduna bi dañ vérifier à travers vérifier l'authenticité à travers ce numéro diplôme Bobo aussi du président université l'université rek signé mais le ministre de l'enseignement supérieur ak signé wala le directeur général de l'enseignement supérieur ak le président de l'université de Bamba avec le cachet du ministre C'est ce diplôme pour le moment Nous avons commencé d'état BTS diplôme d'état actuellement des licences co avec l'état euh, grève Les étudiants yi liñ cey wax ci ëpp solo wala na bokk paiement bourse wax nañ bourse yi dañ koy fay tardivement ci loolu ñoom dañoo bëgg mu dakk parce que dañoo bëgg ñu leen di fayandoo ak seen nawle yi jàng tubaab te nekk ci université publique yi et de la même manière nee nañ aussi euh, absence de logements sociaux loolu bokk na ci li ñuy revendiquer maanaam amuñu ay dëkkuwaay ci biir université bi absence de restaurant nee nañ aussi amuñu ay fu ñuy xewloo fu ñuy lekkee ci biir université bi beneen bi nee nañ surcharge des volumes horaires cours yi ñuy jàng dafa bari njàng mi dafa takkaat naase pour tontu ci lii bu gaaw yu bari tontu nañ ci bu dee bakk bu dee euh, bourse yi xam ngeen ni loolu ça incombe l'état état bi moo am responsabilité paiement wu bourse mooy fay bourse mon rek moo xam kañ la koy fay ak naka la koy fay critère de de de euh, nu mu tuddati euh, d'octroi de bourse aussi étape bi moo koy Comme octroyer bourse octroyer bourse état bi mooy teg yan critère ci lay sukkandiku pour jox la bourse wala mu bañ la jox bourse xam nañ ko par exemple étudiant bon, xam dañ la orienté bu dès sa première année sa moyenne baccalauréat moy déterminer est-ce que da nga am bourse wala doo am bourse malheureusement année bi passé daw ñi ngi jot une liste d'orientation de 1000 deux nouveaux bacheliers 2075 la woon am ci cinq yo xam dañu nekkoon ISEP bu Richard Toll lañ leen envoyé woon orienté woon biñ fa défé deux mois ñu gis ni mënuñoo dem parce que la barrière linguistique français bi ak mathématique bi jaxal na leen nous dem direction des examens au concours demander réorientation ñu indiwaat leen après nous ñu demandé est-ce que mën ngeen leen jël ñu ni waaw 5 yu ajouté 2075 et 2080 exactement sur ces 2080 il y a plus de 1700 qui qui ont.. ay de baccalauréat de 8 à 9 ans..! ñu am une barrière vous leen di pour nous am automatiquement ay bourses..! pourquoi parce que pour nous, demi bourse c'est une catégorie bi gëna wacc parce que bourse d'excellence mo ne ci kaw bourse entière tégu ci demi bourse nekk ci souf pour nga am demi bourse il te faut une moyenne de 10,90. 90 série série littéraire yi ce ñoom moom lañ def bac LAR lañ def donc ku amul une moyenne de baccalauréat de 10,90, 90, tu n'as pas droit à une bourse Si tu as am nga demi bourse 11,99. 11 à partir de 12 une moyenne de 12 moo lay bourse entière ngay am 20 000 francs par mois 40 000 euh, euh, francs par mois demi bourse bi ma 20 000 Si ba 14 commencé 12 ba 13 99 40 000 bourse entière boo amee une moyenne de 14 jëm kaw mention am 60 000 bourses d'excellence chaque mois chaque fin du mois état bi enveloppe lay fayé xam ngeen ko par exemple bu fekkee enveloppe bi 7 milliards la état bi dana day commencer fay les bourses d'excellence ñom buñu jéxalé enveloppe bi ñi ci dess dootu ñu am droit ci bourse buñu ñu jeexalut heureusement mënuñu ko jéxal parce que bari bariwut ñi am ñi bokk ci bourse d'excellence yi dañuy dem ci ñi nga xamni ne dañoo jàll ci ay école yi de formation yi par concours ENAM ENEA yenen école yi ci dess fay leen bu ñooñu jeexalut enveloppe bi ñu ñëw ci bourse entière yi bu ñu jeexalut enveloppe bi ñu ñëw ci bourse demi bourse yi bu ñu jeexalut enveloppe bi ñu xool li ci des ñu def ko par quota loolu ñu tudd ay aide sociale étudiant bu ne 100.000 000 francs lañ lay jox aide sociale je sais pas maanaam dafa ne l'aide n'est ni obligatoire ni automatique ça ne veut pas dire que am nga bac état bi orienté na rek automatiquement da nga war am aide boo demee Cheikh Anta Diop gis ñu fay jàngee amuñu aide amuñu dërëm ça dépend ci Nous traité ko envoyé ko direction des bourses Nous ñu traité itam bu fekkee bëgg nañ ko étudiants yi mën nañ leen fay par transfert waaye boobaa étudiant bi mooy jël charge frais de transfert yi lii moo aju ci wàllu bourse boo amaatee information yu ngeen noté ñu tontu ko ci question yi mais li ci administration bi am lu ci UCAB am mooy defar liste yi ca joxe ko bu dee wàllu logement sociaux tudd naa ko jërul yàgg amul dara luy obligé ukap pour mu construire ay logements sociaux fi mu nekk li urgent pour UCAB mooy mu construire encore ay salles de classe ay amphithéâtre ay laboratoires, ay ateliers de formation professionnelle des ay infrastructure pédagogique ak ay infrastructure de recherche loolu moo li li nga xam ne mooy urgence bi ci biir te gis ngeen effort yi ci man ngeen ko constater seen parce que man jàpp naa ni lu am solo la rôle bu am solo bu journaliste jouer demal sur le terrain xool la Dakar lan la la Saint-Louis lu mu doon li projet bi sëñ bi ubbi ci man dugg péage bi rek lan la ak lañ fa Le aussi lan lañ sur financement propre kon li urgence bi construire le parce que l'Université université d'abord dëgg la foo tëdd baax na ci foo lekk baax na ci waaye ñiy jàngi université Cheikh Anta Diop ñëpp bu fekkoon ku fa amul foo tëdd dangay bàyyi dem ñibbi jàpp naa ne université ba dootul bari ay étudiants dañuy débrouiller ak dakaar ni mu xate pour di wut fu ñu tëdd di ñafe pour jàng bu génn ci loolu nag ci ndongo dara ci ku jàng diine lañ ko gënoon a xam moo tax affaire logement gul priorité pour l'université dara obligé wu ko UCAB pour mu def ko du li ñuy fay li état bi di fayal étudiant par étudiant ci la logement mën a génn du aussi am na kenn kuy financer ku taxaw koo xam ni man mën na maa jël loolu en charge bu dee itam wàllu restauration restauration exactement la même réponse amul dara lu obligé UCAB pour mu def ko bu dee charge bi foofu li ñu fi leeral bariwut mooy lu jëm ci wàllu volume volume horaire xam ngeen ni nit ku am retard course sax jàpp naa ni ki mujj départ moo war a ëpp vitesse ba mu daw pour mën a dabe wala mu yegg dem ci kanam ko xam ni bi ñu ngeen ne da ngaa am bac ñu bare bari ci ñoom lire français seen problème la mathématique daanaka lañ ca jàng arab lañ ko jàng ci pour ñu mën koo jëfandikoo ci surtout ci formation bi ñuy def ndax le médium c'est le français ingénieurs yi aussi c'est des ingénieurs c'est des francophones kon ñoom am nañ ben retard ben gap bu wara combler surtout sur le plan linguistique et technique et scientifique motax année préparatoire bi mais motax aussi que ñun dañuy jàngale plus d'heures lu ëpp heures yi ñeneen ñi di jàngale pour que ñu mën a dabe dama ci joxe anecdote bu tuuti ngeen baal ma presque jeexal nañ un jour à l'école boobu ñoom docteur Anne mii ñoo doon nekk classe di jàng un parent d'élève accompagné de sa femme de ni élève étudiante à peu près à 21h20 21h30 mu ma bureau bi gardien bi moko indi mu ni damay diw ñu ni classe ba ma est-ce que c'est pédagogique xale bu xey jang ci école ngeen tey ko bu heure bi nan ba légui mi ngi salle de classe li ngeen def fan ngeen ko tek maniko ce question bi lu valable nangul naa la ko ci ca la tontu mais nañ dem classe ba paré kérok biñu démé ñi ngi leen fekk ñoom ak seen ingénieur bi leen di former ñuy def ay ci automate programmable bu lañ doon jang ay tapis roulant en miniature ak ay ascenseur en miniature di def ay travaux de groupe ñu leen di noter ñuy activer muy tak tapis roulant yi di daw kenn ku ne di yuuxu di am note moom bi mu ñëwee dafa taxaw di seetaan mu intéressé ko lool parce que c'est un technicien bi mu paree ma ne ko nañ dem parce que ñii duñ fi wax fii ci biir classe bi di leen perturbé bi ñëwaatee ci suuf lim njëkk wax mooy baal ma àq avant ma koy tontu parce que ñii xaw ma woon ni lii la ñuy jàng ma ne ko lii ñuy jàng nag moo tax ñuy nekk ci école bi parce que bachelier arabophone nga ma indi avec un baccalauréat non reconnu mu war a génn fi nekk un technicien donc il faut mu def mu jàng plus d'heures par rapport aux autres sinon duñu mën a am les mêmes résultats que yi ñu am ci yeneen écoles yi wala bay espérer naan dañuy raw wala dañuy dabee loolu bokk na ci li waral li tax ñu naan charge yi horaire bi dafa bari ca may leeral parce que dégg naa étudiant yi di ko wax naan à à Dakar am na ay cours classes yi commencé cours de 8 heures à 20 heures loolu amul et c'est à vérifier emploi du temps yi mi ngi ak ñun nous indil plus de, des centaines de nouveaux bacheliers et nous avons des salles de classe le nombre de salles de classe est limité nous divisons les par corps de yooyu nous def un système de rotation ñii dañuy xëy ñii di gont boo bokkee ci aay da ngeen di vous lundi des gens. qui sont ñuy jàng lundi ñëpp chaque classe chaque cohorte trois jours dans la semaine ñuy jàng lundi du jang mardi ñooy ñëw mercredi du jang jeudi ñooy ñëwaat vendredi.

direction de l'enseignement supérieur daf ko valider manam maquette de formation yep ñom avec leurs techniciens et leurs j'espère experts dañ koy étudier xol ko xol contenu ba paré bu féké lepp aw na yoon ñu valider ko lu ci jar xoolaat sax dañ ñu koy renvoyé waat wax ñu defaat leen li défarat leen li te ci biir maquette de formation yoyu dafa am ben dañ ko renforcer du wax surcharge dafa dañ koy renforcer parce que faut école de fait, Tu ci module 20 heures nous on nous demande de faire parfois 40 heures parce que madame, vitesse de compréhension niveau de compréhension étudiants yi ñu am ak profil bi am parfois temps pour comprendre parce que y am une barrières sur le plan linguistique et technique nous sommes obligés de faire plus d'heures que les autres Lolo. te pourtant loolu dañ koy def ñun à perte c'est-à-dire dañuy fay ci benn module lu ëpp li ñu koy jàng li ñu cay fay ci beneen école sëñ bi di ko surchargé foo war a def module nga xam ne mënoon nañu autoriser nga def bi 20 heures dañ lay obligé nga def ko 20 pour étudiant bi mën a comprendre parce que profil am moo tax jàngkat bi aussi jàngalekat mën a am plus de temps pour mën a expliquer li mu expliquer yëpp ak ay def ay TDM war a defee loolu sëñ bi moo koy supporté parce que foo waroon def 20 heures nga fa 40 heures ku ne xam na ni da ngay fay bi ngay fay et pourtant loolu lépp daf koy form da koy fay kon lii moo waral ñu naan njàng mi ci UCAB dafa bari ñii bi ñu déggee loolu ñoom dañ doon ree parce que xam nañ ni ñii dabaguñ leen en terme de surcharge moo maye nag résultats yi ñu am nii tey muy ay résultats yu satisfaisant kon ci cadre boobu dañuy wax ni ci point yii étudiants yi avancé UCAB day jël acte

mais un marabout aussi ko xamni toujours clémence yermende nooy masla lañ ko xamé ak pardon waaye ca moom itam dana recevoir étudiants yi parce que bind lañ ko lettre pour rencontrer ko dana len rencontrer bu loolu jallé ci ndigalam danañ jël mesure yi ñu wara jël yu ferme pour la continuité des activités voilà d'enseignement et de formation loolu moy li ñu déclaré pour ñëpp dégg ko maa ngi jégalu ñëpp ci guddal gi waaye dañoo bëggoon joxe rek maximum d'information kenn ku ne après mën nga ci jël li nga bëgg a jël su ko defee question yi aussi dana tax mu gën a mu gën a am solo am na ci euh, loo xam ne gis nañ ko bi di jaar bu ñu gisee kon ay mouvement d'obéissance politique yu dugg ci biir étudiants yi di def ay déclaration kon dañ daneen ni ah attention am na lu ci dugg loo xam ni ingérence la am na lu ci dugg lu bokkut ak suñu suñu gis-gis ñun loolu xam nañ bu baax infiltration bi parce que dañoo toog di ko wax ñuy dégg bokku ak ñoom ay objectif léegi nag dañoo bëgg utiliser suñu produit suñu étudiants suñu cadres pour faire passer leur mission avons une responsabilité la bourse parce que nous avons traité liste yi jox direction des bourses euh, avant-hier directeur des bourses dafa mardi daf ñu woo réunion ak délégué wu amicalu étudiants yi ak moom presque mën naa ni personnel direction des bourses bépp ñu def ak jataayu ñu def réunion bo xamni leral nañ fa étudiants yi lañ njëkk jox kàddu ñu leral fa lepp lu aju ci seeni nakar ci aju ci walu bourse biñu paré question yi nga xamni ñom poser nañ ko da ci am yo xamni ñun ñoko wara tontu parce que ñun la concerné directement yooyu question c'est des questions c'est des détails en fait technique classe sangam ña fa nek dañu amoon retard wax nañ li si de dem ak yu mel non ñun on a répondu à ces questions là question yi ñu posé won ci walu woowu tontu nañ ci directeur des bourses rappelé les étudiants yi que ni boy def grève ci affaire bourse da nga wara xam d'abord li nga wara a njëkk xam moy ni amna ben texte bo xam moy régir affaire bourse da nga a lire ba jeex pour nga xam lan moy sa àq ak lan moy sa yelleef yéen li ngeen di revendiquer ak li ngeen di laaj lepp texte bobu wax na ko bokkoon na ci li gën a naqari étudiants yi dañu japp ni ñun ñoy dag ñenn ñi di leen génn ci liste yi. bu ñu inscrire ba pare ñun ñoo leen ciy génne directeur wax leen ni ñoom ñoo demandé ci université bi ñu di ko jox ay list yu propre yoo xamante ni ñi teew di jàng kes ñoo ci nekk ku inscrire bokkoo ci ku ñëw inscrire ba pare di absenté bokkoo ci loolu dafa am solo ñu bàyyi ko xel euh, loolu moo ci ëppoon responsabilité mooy affaire list yi ak traitement list yi léegi nag léegi nag Euh, euh, am na lu ajuwaat ci wàllu bourse yi étudiants yi di ko wax toujours mooy pour ñoom dañoo gis ni dañ leen a war a fay ni ñuy fayee seen morom yi ci des ca ba pare dañ leen di war a fay en même temps maanaam bu fekkee ñaar ñu bokk ndey ak baay dañoo bokk génn kër kii ñu orienté ko jàng tubaab ñu orienté ko UCAD UCAB UCAD UCAD Université Cheikh Anta Diop ki ci des ñu orienté ko UCAB Université Cheikh Amadou Bamba ki ñu orienté UCAD mooy njëkk a dem jàngi moom mooy njëkk jot orientation moom la ñuy njëkk a fay te buñ koy fay mën naa fayee ko banque mais ki nga daf ko dañ ko orienté UCAB moom day fay yéex a jot orientation day yéex a fayeeku yéex a fayeeku googu nag moo aju ci bourse yi ñoom loolu la ñuy revendiquer loolu liñ ci leeral ñun mënuñ ci retard boobu dara lu ko waral parce que dañuy recevoir étudiants wu UCAB dañuy recevoir étudiants wu tardivement fi mu nekk nii campusine bi ubbe ubbeeku na plateforme bi étudiants yi am bac ñëppay dugg ci biir demander orientation suñu paree dañuy jël ñoom li département arabe mën a jël pour les arabophones les bacheliers en arabe la ca des nag danañ toog ba mois de février wala mars d'habitude ñu doog koo jot si ñu jotee une liste d'orientation au mois de mars te ñoom ak ñi au mois d'octobre wala novembre ñoo war même année académique nous avons ni retard parce que après la réception des listes d'orientation il faut ñu ñu def li y a des procédures inscription bi dañ durée une durée de deux mois parce que étudiants yi plus de 2000 boo leen bëggee inscrire ñoom ñëpp ci un mois boo muy dana am ñu problème buñ ci deux mois pour les inscriptions ci mënuñoo envoyer ben liste ci deux mois yo jéxul deux mois yi bu jéxé ñu door nak défar liste bi envoyer ko division de l'enseignement privé euh, l'enseignement supérieur direction de l'enseignement supérieur ñoo ñu traité envoyé direction des bourses ñu traité s'il y a des erreurs à rectifier ou à corriger ou à ñu defaraat envoyer waat ko direction de l'enseignement supérieur mu indiwaat ko ci ñun bu ñëwee ñun ñu jotat ko defaraat ko door ko envoyer donc toutes ces procédures là comment ñun nan lañ mëna def pour éviter que retard am c'est pas possible parce que ça ne dépend pas de nous. étudiant université bu Cheikh université Cheikh Bamba d'ailleurs dama lay renvoyer waat ci contrat peut-être mën nga ko gis nga xam ñaata ñaata par étudiant ñaata lako état di fayal Lolu rek social la mënuñu ko wax ci micro yi Lolu rek social la d'abord nga accepter étudiant bu toll noonu te xam na ni ci filière de formation yi ñu nekk. Bo a une mensualité de 100 000 francs 150 000, 200 000, fay d'abord kon fi moy bo xamni état bi da fayal lim lay fayal rek social bi commencé benen bi ci des moy bo ci biir université bi dañuy associé ci lepp infrastructure yi ñi def ba ci lu jëm ci cadre yi ñi dajé ndimbal bi leen señ bi di topoto di taxaw ci même culturelle activité religieuse daayira bi nekk ci biir seen amical bi li ñuy def lépp sëñ bi daf ciy ñëw bokk participer beneen bi ku mooy xam na ni formation professionnelle parfois day laaj incubation buñ ñu jàngee ba pare boo demee bambay dafa am benn espace bu yaatu boo xam ne sëñ bi moo leen ko aménagé defal leen fa ndox ak liñ soxla lépp jox leen intrant ak matériel agricole ak ay semences ak li soxla lépp pour que ñoom li ñu jàng ba pare ñu mën a amaat année une année de plus boo xam ne dañuy toog foofu di pratiquer Té buñ koy pratiquer buñ buñ paré, paree lañ ca génne dañoo wax dañ koy bok ak école bi sëñ bi def ni nañ leen bayé lépp nañ fa tok une année bo xam dañuy exploiter jël étudiants yu bari fofu lañuy amé départ capital pour buñ ñu surtout ñuy def agriculture élevage pour mëna a dem defari seen fa ferme bop wala ñu mëna a dem defi seen activité bop. loolu lépp c'est du social bokkul ci contrat bi bokkul ci charge yi war ci université yaakaaruñ ko yaakaaruñ ko ci porter porter plainte sauf que ci niveau bi ñu toll nii jaragut lu mel noonu parce que ñun université la boo xam ne c'est une université à vocation religieuse J'ai à dire que lu ñuy def lépp ci wàllu dafa am dañoo am ñun euh, ay valeurs yu ñuy doxee bokk na ci pardon bokk na ci ouverture bokk na ci aussi bokkoo ak ñëpp looloo tax euh, ubbiwuñ front de bataille contre quiconque ñun loolu du suñu objectif taxu ñoo jóg mais lii dañ koy wax pour ñu xam ne xam nañ ko léegi nag am nañ suñu stratégie interne yu ñuy def ci wàllu jëflante bi ak wàllu doxaleen bi ba loolu du mën a gàllankoor doxaleen bi waaw étudiant gréviste yi xam nga étudiant moom toujours da ngay comprendre situation sinon kon da nga naan à partir de jour tel danañ commencé waat ay cours képp ku ñëwul dàq nañ la parce que loolu moo nekk ci certificat d' yi waaye nag sëñ moom ku ne xam na yërmandeem moo tax ci déclaration mënuma koo def fi toll nii wante wante mënul nekk nga nekk ci université ba pare di saboter doxalin bi ba pare ñu continuer bàyyi la ngay saboter waat doxalin bi parce que da ngay yàq lu ñëpp bokk loolu moo tax ñi nga xam ni nag dañoo continuer ñoom euh, maanaam xaw a féeteerlu ci li ñuy def ñooñu danañ jëflante ak ñoom par tous les moyens nag pédagogique